إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk noo ngi koy gañ ci mboolem xeeti tur yu sell ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu borom moom moo ko jagoo noo ngi gërëm yàlla bi mu defalatee daw fii ba ñu dellu si waat si sunu keppaar la xam-xam di waxtaane saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yooyale góor ak yooyale jigéen nga xam ni jamono dootu gisati aw nit yu ni mel aw góor lañ noonu ak aw jigéen woo xam ni ci ragal yàlla dañuy féete ca kanam ci dëddu àddina yi dafay fekk ñu féete ca kanam ci maandoo jubag dëggu nga fekk ñu féete ca kanam nu am ngërëmal seen borom subhanahu wa taala ci kaw suuf képp ku ñuy tagg sax di wax sax mbaa noonu kooku ca rang ba ngay taxaw ca gannaaw saxaaba ya lay doon njaal bee ñi taalibe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ne laa tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami salaa yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar aw góor ak aw jigéen loo xam ni yàlla subhanahu wa taala moo fees jël ci seeni xol bëgg yàlla moo fees ci seeni xol gëm yàlla moo fees ci seeni xol loola sabab la ci am commerce ay yittee lépp loo xam ni gàllankoor la doon ci nit ki ngir mu jaamu borom subhanahu wa taala loola ñoom nekkuloon seen gàllankoor luy sabab bi ndax ñi gëm ñi dañoo dajee seen borom ñëpp saxaaba yi ñu dem gën a gëm loolu suñu borom yaxaafuuna yawman tataqallabu fiihi al-quluub wal absaar kon noo ngi nekkoon ci dundu kenn ca ñooñee di kenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ma fàttaliwaatee wala am dama wax ni noo ngi bëgg am diir bu yàgg ci dundu Aïcha waaye nag waxoon na ndax newoon naa jigéen ñi Aïcha ci boppam dafa taxaw taxawaayu jàngal jullit ñu jigéen ñi wala dundu Aïcha dafa taxaw taxawaayu jàngal jullit ñu jigéen ñi bariwaana moom lu jëm ci wàllu ragal yàlla wala dugg àddina wala baax wala mën a sax wala mën a jaamu yàlla wala xam nu muy nekkee ak borom këram yi yëpp ay xeeti njàngal la yoo xamante ni foog na ne xam nañ ci daal kon dañu ci ànd ak kenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy aïchatu radiallahu anha fi ñu façon suñu bind gën a weer gisoon ngeen ci tomb wañ taxawal ni mu amee solo te jullit yu jigéen yëpp war ci bàyyi xel mooy kerata boo xam ni xëyma ci boppam tëli na ko melal ba mu man mel na mu war a mel ndax bari bu mu bari tey ngi taxale ci xawfuha min al madalim xawfuha min al madalim mooy tiit boo xam ni Aïcha doon na ko tiit ci tool xam ngeen mbokk yi tool lu gaaw la tey doomu aadama yi ci seen dundin sóoraale wuñ ci lu bari waaye ak am solo nit di ko bàyyi xel tool musiba ju rëy rëy rëy wala bi dañuy leen naan tool du gàllaaj wax nañ dëgg tool moom du gàllaaj nit ki la koy aar ak lay tax mu mucc kooku moom tool boobu ci moo tax Aïcha radiyallahu anha malgré que suy jub li muy baax ak li muy ragal ragal yàlla ku wat ndi ku woon la ay tool tooñ de góor da koy def jigéen da koy def waaye mbokk comme dañoo toog ci dund ay Aïcha jigéen ñi nañ déglu bu baax xool kenn ci seen biir muy Aïcha radiyallahu anha ni mu doon ragalee tool ak ni mu doon war ni koo tool ak ni mu doon mooy tool tool na jële ci ndongo ndongo jigéen ndongo jigéen bu am sëriñ bu jigéen mooy Aïcha binti Talha Aïcha binti Talha ndongo la Aïcha la woon soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha binti Talha muy soxal naa jële ci sama sëriñ bi ne Aïcha moom benn bi mu ni annaha matalat jaannan fa utiyat fi lmanami fi manamiha wallahi laqad qatalta muslima qalat law kana musliman لم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أو كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك فأصبحت فزعة فأملت باثني عشر ألفا ألف درهم فجعلته في سبيل الله عبدا dafa waxtu ndik woon koor ba waxtu ndik ci dëkk dayo ba misaal yi ñu ko mën a joxeel bari na dégg lu baax Aïcha dafa waxtu ndik woon koor ba du koor ba misaal yi ñu ko mën a joxeel pour wane daaw koor bari na waaye dégg lu misaal bi nee na la Aïcha bi Talha nee na Aïcha benn bis dafa dugg ci néegam fekk fa jaan dafa dugg ci néegam fekk fa jaan Aïcha xaritu xëy te yonent bi jàngaloon nañ suñu suñu reyee jaan ndax xam ngeen boo duggee néeg yonent bi léeg-léeg dañ leen di dafa daan fekk benn genre kex boo xam ne yonent bi dafa daan reyee unk yeeg yooyu te la waxoon uxtulul aswadayn ñaari ñuul alxayata wala aqra jiital jaan yi demee noonu ak yay lor mën ngeen leen a rey Aïcha jël lu bett bi rey ko bi mu ko reyee ba naan guddi jot mu tëdd li mu tëddee ba guddi am lu ko feeñ ci ay nelaw ni ko ah mbaa xam nga ni jinne jullit nga rey allahu akbar Aïcha tëdd ba guddi am lu ko feeñ ni ko ey mbaa xam nga ni jinne jullit nga rey tey Aïcha ni mukk man rey ma jullit ab saay saay laa rey ndax bu doon jinne jullit la du ñëw ba ci néeg soxna yeneen bi naan dafay dugg di ko feeñ ci nelaw yi ni ko waaw ku la wax moom bu koy dugg du bàyyi ba nga toll ba mel na nga war a mel mu door a dugg ah Aïcha daal di tiit gis nga Aïcha daal di tiit gis nga ni mu tiitee nee na di ma yeewoo dafa daal di jël ci xaalis lu tolloon fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ak ñaar nag bokkul ak soixante franc comme ni ma la koy waxee suñu jamono ji déedéet fukki dërëm ak ñaar jamono jooju mën naa am ay junni wala mu jege Aïcha bi mu xëyee mu daal di koy sàrte xam nga sax mu sàrte ko mooy def na erreur rey na dara jàpp ne lu mu war a rey effectivement lu mu war a rey la ne waaye nekkete ci nekk jullit la rey loolu ay njàngale yu nit njàngale bu njëkk mooy li ma tax a jóg mooy wan na dina ko doon wat di ko xool la Aïcha radiyallahu anha kon ba muy rey ne xam nga woon ni ci nekk jullit la rey waaye soo ko xamoon du ko rey kon wat ndi ko woon sonn beneen bi ci nag mooy ndekete jinne am na ay jullit tey ndekete jinne day soxli ku jaan loolu moom ay tegtal yu dul yii wane na ñun fi ñu dëkk jinne dafay dëkk jinne day dëkk ci salte day dëkk ci sën day dëkk ci wara day dëkk ci jullit ñi fi ñu dëkk day dëkk ci jullit ñi fa ñu dëkk al imam ibn xajar ibn xajar boobu nag boo ko fekk ibn xajar al asqalaani ibn xajar al haytami ak imaam al mundiri ñoom ñaar yëpp dëppoo nañ ci di nekk ni ni dafa am ci soloy Kuufa benn dëkk boo xam ne dafa amoon kër kër gi ku ko dëkk rek ku ko jënd rek boo jëndee dee benn waa daal di koy yëg daal di ñëw jënd ko duñ ko jëndee ci guddi gi mu daal di fay fanaan xëy deewu bi mu xëyee deewul mu ne nit ñi daal di yéemu ci dëkk bi yëpp ñëw di ko laaj lu xew bi mu ne mu ne mu bu dëkk bi dafa jënd gee ba noppi toog ci digg ëtt bi jàng fa alquran bi mu jàngee alquran ba noppi mu gis benn jinne daal di sëbee ci biir keen bi nekk ci kër gi daal di génn bi mu génnee ni ko waaye sëñ bi yow yaa ko mën a jàng waaye jàngal ma ci li ngay jàng waa ji nee na ma daal di tiit mu ne ko jëru ngay tiit ndax yow ab jullit nga du ma la lool mu ne ko waaw lu xew ci li ma doon dégg ci waa kër gi mu ne ko ñi ci dëkk ñëpp ay taay taay la ñu doon mooy yàlla ci kër gi te nun ay jullit jinne yi jullit lañ ñu dëkk ci kër gi moo tax ku fi dëkk boo toppul yàlla ñu rey la ko te xis ko boobu ilam ibne xajar la xayta maxdum tudd ci azzawaajir وكذلك الحاق على من دون ذلك الترغيب والترهيب beneen nit ñi moo xam ne ca jamono yonent bi la amoon sallallahu alayhi wa sallam yonent bi benn bi dañoo war a dem xayba wala benn xare bopp xam ndax wala beneen xare am benn zone boo xam ne dara doog a séetal te li may wax ni saxi muslim waa ji daal ci doon seen bu toog yëpp ñu war a xare mu génnee dem bi ñu dikkee ba ci arme bi mu ne yonent bi may ma ndigal ma dellu sama kër waxal sama soxna jëlu soir yonent bi ne ko déedéet jëlal xeet wala jaar ndax dafa daan kaay fab la ci yoon waa ji jël xeet wala mu jël jaar daal di jëm këram saxaaba yi ñu fiiroon la ñu fiiroon ci seen soxna la li mu dikkee benn soxna si taxaw si buntu kër gi dafa xaaj ci xeet dina ko kaw ñaan xam nga lu tax pourquoi ma bàyyi la ngay génn sama kanam allahu akbar ñooñu bu ñëw fii tax soxna dafa naa kon ngeen dugg si la ci am rek soxla sama dee ci seen i fiiroon seen diine mu xaaj ci xeet dina ko ñaan bu soxna tamit soxna si daal di koy baare ne ko déedéet day ngaa téye loolu la wala dina bala ngaa koy jéem ñu sàmm xam la ni wali mu ne ko doxal mu ne ko jaane gi ci biir kër kaay mu ne ko kaay xool li ni ci biir kër gi waaye ci ci biir kër gi moom sori na ci wàllu alfaay mu dugg ba fekk benn jaan ci biir néeg mu ñëw rek ba léegi mu teey ba léegi mu laajte defu dara mu xaaj ci xeeñ dara ni ko dab ko jaan bi bam ne ko dab ko jaan bi jaan bi xallal ci ko tàllal saxaaba yi nee nañ moom jaan bi ku jëkk a dee léegi la ñuy laal est ce que dégg nga li mu kàccee xëj bi ñu ko kat ku jaan bi jaan ji allah di ko wëlbati ko léegi jaan jee ci ko dóor bu jëkk dee ñoom ñaar bi jaan ji ni këndëng dee moom it mu ni këndëng dee ci saa saxaaba yi wax ko yéen ci yéen mu ni bu ngeen duggatee ci kër yi gis ci jaan dee leen def ndànk ndax am na suñu mbokki jullit yoo xam ne ñu ngi dëkk ci biir bi moo tax du jaan doo gis ci kër rek ay loolu tamit lu ma si bàyyi xel la dëgg la jaan ji yéene la bokk waaye du jàng dina ngay rey moo tax borom xam-xam yi dañuy wax su fekkee jàng la joo xam ni mandarga yam yore wala ci teg fa faroo ba mu la dikkalee da nga cee am yaakaar ni ci jinne juri la war a demee noonu boo ko mënta dégg waale nee ko eh maa ngi jaayante ak yow bul ma lor génn sama kër dafa nekk ba muy ñetti yoon bu dee jinne juri la dama génn sarga yoo xam def na ko benn bis ñëw ci biir kër bi mu ñëwee dafa toog ak yàgg beneen ko wuy sa soxna mu def wuy ji bi mu yegtee fekk fa jàng ñu fekkee fekk fa jaan soxna si ni ko gis nga jaan kii man xàmmee naa ko yàgg na maa toog yàgg na maa toog nee na bi loolu amee sam la wax ak taxaw mel ni koy xutba daal ni ko ee maa ngi lay jéem ak ragal yàlla ndax munu maa xajal yow ci biir kër gi damaa bëgg nga génn jaan jaan gi mel ni sa waay waa ji dégg arab waa ji dégg arab wa waaye tox joxam léegi naan ko dem yoon kon boo dee xool ci sunna yu mel noonu am kon julit ci dafa war di téye ci buntu boobu beneen bi ci des mooy am ci xam ku ragalam la tooy la mu moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la loolu lu mat a bàyyi xel la ci buntu boobu surtout nag tooy ci anam bi gën a yaa ak bëgg ci ko muy ci mbokk yi ah itam mooyee mel nii ci ragal yàlla ak ci tooy lu tax ndax professeur bi ko yor sama primaire ngeen ko yor ba ba mu am ba ba amee diplôme mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci ko jàngal mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yar ko te wala sa aar ci taasir bi mu def yonent bi am ay jeexintalu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ko moom yàgg naa dégg yonent bi wax ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawma alqiyama wax ndi ku leen tooñ ndax tooñ ay lëndëm la ca bàmmeel tuumaal sa mbokk ngir tooñ la fenal ko tooñ la jël yëfam tooñ la fekk saagam mu teg nga daal di koy ubbi ci yor ci lëndëm nga coppati ko tooñ la waxal ko lu mu déglu tooñ la jël ab kusóor yennoo woowu ko te yaa ko tey te danga cee jublu tooñ tooñ la kon mbokk yi la suñu borom wax ne wala tabxasu naasa asiyaahum dara yi bul ko jël bul tooñ ay te yàgg naa dégg yéen daal ittaqu zulma mooy ñu leen tooñ fa inna zulma zulumaatun yawma alqiyaama ndax tooñ ay lëndëm këruus yu nit mënta dégg lay jural nit ki yawmal qiyaama yéen yàlla bi nee na ittaqu bol ittaqu daawat al mazlum wattu li ku leen ñaanu kul tooñ fa innaha tuxmadu ala al ghamam يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد شيء yéen yàlla bi nee mooy sa dikku leen nga tooñ nit mu ñaan la yàlla yàlla na yàlla àll wala yàlla na yàlla yàq say mbir moo ndikul loolu loolu moom subhanallah mbokk yi moo tax yàq jàng diin réer réer moo gën a bon façon ndax dama yokk poson bu la rayee mën na laa bañ a tàmbal sawar waaye réer bu la rayee moom rek ci raw yéen nga dégg ni bàyyi naa nag yàlla nga dégg koo xam ne xam nga kàddu bi ñu wax ñu réer mën na wax waroon naa wax saxal ci da ngay dégg ni bàyyi naa la yàlla ne mu réer daal ne ah bàyyi nga maa sama xel subhaana rabbina al aala ñi ñi ñi ngi ëppee ci kaw ci li ma xamoon boo ko mën da ngay wax ni bàyyi naa nag yàlla mu xam taal bay bëgg a dee ñu la ah loolu jiituma ko ndax bàyyi nga ma sama xel allahu akbar yàlla xaritoo wul seen diggante bu toll ci yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mooy tëdd jural ñaanu ko mu tooñ ndax boo tooñee ñaan bi yàlla da koy yéegal ci kaw niir yi yàlla ci giñ naa ci sama tedd la ak sama màggaay bul yàqam lu mu yàgg yàgg yàgg dina la fayu jarul nga yàqam fayu dina la waaye boobu sa diggante sa mbokkum bi waaye bokk nekk nit yéegal boo ko tooñee mu ñaanal la sax ñaan gi day daal nga ne ma la ciy nekkal ma ne la xadis wér boo xam ne sax naa tudd bokk na ci ñi ko wéral sax loolu jaane yéen yàlla day gis sax bu daaw ak ma loomi wa in kaana kaafiran fa innahu laysa duuna xaasika sonn amul ci jullit amul yéefal wax ni ku ñaan ku nu tooñ ndax ñaan ku nu tooñ digganteem ak yàlla benn baaraam buy jéem mu yegg amu ko wa in kaana kaafiran doon di yéefal kon mbokk yi ab julit nii la war a mel ñaar te moo xam bu góor ba la moo xam bu jigéen ba la bul tool lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw bul tool ñetti misaal yi yi ma lay ñetti doog a jàll suñu bind benn bu ci ne ni fii la ko layoon ni mbokk yi tooñ dansal yaakaar naa yéen ñiy toog di dund saxaaba yi yàgg ngeen a dégg ni seen saxaaba ba muy saxaaba bi wax xam ngeen ci jamono amal ngeen ko sal nañ waxaat dañ koo jëloon def ko amir ak imam te kuufa mu nekk kuufa ci ba jiite ba mu yàgg nit ñi commencé indi ay rumeur saabu daal lii saabu daal lee saabu daal kenn ku nekk di wax ay waxam ba ma jeeg ci Omar ibn Khattab saabu daal jël Ammar ibn Yaasir ni ko demal ma fal la kooku waaye xool naa saabu Omar bàyyi ba am jot ñëw bi mu ñëwee ñu waa dëkk bi yéene la ngay jëlee saabu day salaame saabu ñii naan moom mënta jullee ñii naan buy julli day julli këpp këppalal kenn ku nekk yoo xam ne daf yoo xam ne kenn xamut la saa mu ne ah bu fekkee mënu maa julli doon ma xam ne man la ma yent di jàngal doon lay julli sis baa nii laa ko doon jullee tàkkusaan nii laa moom waxee ba nag ngeen jëli xamal ni ko ah ñii da leen doon jullee noonu nag nit ñi mel ni comme seen fexe naa ngay bëgg a jeex fekk am na benn waay bu nekk ci mbooloo bu ñuy wax bu saama lii bi ñu xasaana bu ñuy wax bu saama ibn Qatada waa jooju ñu ngi doon wax Aba Saada daal Usaama daal ni moom sax yëpp yi sax moom am na leneen lu ci topp te yëpp mooy yëpp yi am na lu ci topp ndax seetlu naa ni saa bu mu saa déclaré guerre day yeble moom du nangoo dem aw sa nangoo mu ni seetlu naa ni saa bu mu demee guerre ba am sa màng bu déllusee moom da koy séet du ko séddale séddale bu normal ñaari kàcce boobu beneen bi ci des mooy moom bu àttee du maalu ci ni muy àttee ñetti kàcce boobu allahu akbar saa bu ñaaree suur ndax feral nañ ko ñeenti fen muy wax ci wax mën di julli te loolu dañ kaa tooñ beneen bi ci des moom mooy waa jii la ñëw na doon ci ñett yoo xamante nii lan mooy leen waxtal saa bu daal di ñaan li saa bi mel muy wallahi la aduwanna bi salaatin dinaa ñaan ñetti ñaan ñaan bu def gi mu ni allahuma in kaana abduka kaadiban wa qaama riyaan wa sumatan wa baatila fa atil umra وأقم فقرا وأعرضه وأعرضه للفتن mu ne yàlla su fekkee sa jaam bii di ma tuumaal day fen maa ngi ñaan ñetti ñaan yàlla na tuddal aw faam nuural ko ci ñàkk ba mu jeeyaale ko te boole ko fitna ne fu mu mën ci dem ba tax muy dee allahu akbar musiba waa ji dem na ba màgget ba yéen xam ngeen màgget boo demee ba màgget ba yii day wàcc muur ko ji xam nga loolu mooy màgget lii gis ngeen lii léeg-léeg nit day màgget dem ba lax lii wàcc muur ko ji dem na ba màgget ba yéen ñi wàcc muur ko ji lay sax da nga koy romb ci mbedd yi muy sax sax xale bu jigéen day fekk ko xam tëddal sax ko man mu koy dàq di ko sax boo ne ko lii nag mu ne bu ma teen yéen li ma dal tey moom ñaan ak saaba ma jàpp allahu akbar am ku su ma rànkee foo ko fekk ci mbedd yi lay nekk gudd fan nangu na ndax dem na ba ay yéenam wàcc mandarga mu lay wax ci téeméeri at yëpp matul jege na ñàkk loolu ndax ci mbedd bi la nekk amatu suñu dëkk foo ko fekk ma ngay tàppaatu du moromu sëdd yi ba waxee mu ne man li ma nekkee tey ma ko ñaan ak kaaba moo ma jàpp mbokk yi weer na dootu bu lay wax ni soon ci boppam musiba la moo tax wala ko soon du gàllaa ñaari benn waaye ni te li ak imam Zahabi ñu ngi koy nettali ci téeréem boobu di tuddee alkabair imam Zahabi borom fiya xaalis na benn téere tuddee ko alkabair mooy bàkkaar yu mag te bàkkaar yu mag mu boole ca tool ba alxaafis alxaytami ci ibn xajar alxaytami ñu ngi koy nettali waaye xam nga lan la tuddee boppam rek man raani fala yazlimanna ahad ku ma gis koo xam ni gis na ma rek bul tooñati kenn waaye dafa tey benn bis jaar ci ko tey tefes bi dajeeg benn nappkat bu yore ngandam maamu jën jën wu rëy jën wu rafet neex xool neex a moom waa ji dajeeg ñoom ni ko yee sa jën wi laa bëgg mu ne ko jën wi kat naa ko napp dama koy jaay ko yóbbu sama ne lu fekk ma koon doolaa wax jox ma jën wi ci force loolu ñu tuddee rek agré mu daal di jàpp waa ji lapp ko lapp ko lapp dóor ba bëgg a dee ndax moo ko ëpp doole nangu jën yi yóbbu liñ jëndee nanga koy jënd yóbbu ndeke waa ji ñaan na ko yàlla te xista bi ñoom daal ñu koy yëkkati ndeke waa ji ñaan na ko yàlla waaye dama dox jënd daa dee waaye dama dox tuuti rek ngeen ni kepp baaraam bi maa allahu akbar jënd wu dee jënd kepp baaraam bi maa waa ji fanaan affaire bi di métti di métti di métti métti woo xam ne kenn mënu la koo métti waa ji yeewu rek suba teel rek dem ci docteur docteur bi xool ko ni ko lii de mooy feebar yooyu ñu tuddee comme ni xew ci jamono ñu naan cancer nga xam ni bu la fekkee dalee wala ñu ne ci dagg tànk mu ne fii de moom la ñu tudd al akla al akla ci arab mooy góob boo xam ni boo daggut cër ba day continuer lekku dem docteur bi ni ko gis nga da ngay gaaw nga dagg sa baaraam boo ko dagg sa yaram yëpp a yaram mu ne ko bismillah tam dakkal ma baax ñu ni këpp baaraam bi fii waaye dem deuxième guddi yi mu tëdd mën ta nelaw affaire bi di yokk di yokk bu xëyaat ñeenuwaat bi nga demee docteur bi xoolaat ko ni ko affaire baa ngi yëgle kon faaw ñu dagg fii ñu dagg loxo bi fii bande mu ñëwaat troisième guddi gi mu tëdd affaire bi ci nekk métti waraw yi paase mu di kat docteur bi ne ko ñu nga yow sa dëkk yi man jaaxal na ñu ngi yëg rek ñu dagg fii ci ëllëg ñu dagg fii ci ëllëg ñu dagg fii ci ëllëg ñu dagg fii ba beneen jur ba fii la ñu waroon dagg mbagg mi bi mu laajee benn waay xalaat waa ji muus mu ne ko man nii am na ku ma tooñoon nangam mu ne ko gis nga boo amul temps xaq ka nga tooñoon moo la jàpp lii lépp bari nga dagg sa yaram mënoo dem di ko nga dugal waa ji di ko wër di ko wër di ko wër ba xam këram mu dem daal di koy baal li ngay nee wan ko wan ko borom jën wa da doon jooy waa ji da doon jooy naan ko yow boo nekkoon dañuy dal mu ne ko xanaa keroog bi ma jëlee jën jën da nga maa ñaanoon yàlla mu ne ko waaw loo ma ñaan mu ne ko damaa ñaan yàlla kii day doole jii jaay na ma ko ndax damaa néew doole yow mi fi nekk na ci am doole maa ngi lay ñaan nga xayul ma ci sa doole ju bari mu ne ko loolu laa la ñaanoon keroog waa ji sukk ci kanamam di ko raamal bay mar anti ngir na ko baal gis nga na ko baal rek affaire bi yem foofu kenn daggu ci loolu subhanallah kon mbokk yi musibal musibal lu mel noonu daloon na Aïcha xam ngeen kenn moo dem dem sa kër benn waaye dafa ñëw fekk ay sa kaw gi leen nga xam ne saa yu saay saay mën naa sax musuma gis ay sa xaw ma xar kanam lu mel xaaral ma yër ko kaw dëkk bi mooy liñ ko denc ci gileen bi mu yër loolu ak xool kanam gis kanamu Aïcha mu ñoom dañ doon làq dañ doon nëbb seen kanam ñu leen doon dugal ci xëyma Aïcha ni ko xaatala kit laa yal na la yàlla alal loo fi wut yal na yàlla la toroxal alal gis nga waaye biñ koy ne dañ kaa kucc rendi ko dogal ko sànni ko ci sën lii muy dégg kon li ma bëgg a wax daal foofu mooy bari waana nit bu ñaanee yàlla yàlla subhanahu wa taala nangu ko kon ñaan ku ñu tooñ ak julit da koy mooy te ko ndax digganteem ak yàlla dara ko est ce que loolu bokk na yaa ngi koy dund yaa ngi koy dund est ce que yaa ngi koy dund di bàyyi xel sa diggante ak sa borom ak sa diggante sa borom te mbokk yi dafa mel ni wala xool ba ci biir sax tooñ yàlla subhanahu wa taala benn baax tooñ yëpp benn baax waaye daf mel ni buñ la doon tànn loo man bu tane damay wax ni tooñ yàlla tane tooñ bu tane. yéen baaxul ko te benn tamit nit waaye suñu noonu faaw nga tàngalee na man doon yàlla lay gën a ñeme këpp nit ndax yàlla moom boo ko dooleel subhanahu wa taala loo tilim tilim tilim tilim tilim law ataahu al abdu bi quraabi al ardi dunuban la ataahu rahmanu bi quraabiha magfiratan demal tibb lu tollo suuf fekk suuf wala tollo tuuti géej gi ci ay bàkkaar nga am ko dama ne boo déggee ci kanamu yàlla yàlla double ko lu toll noonu ci jéggal dajeeg yow waaye boo toll nii est-ce que baax na musiba ji ngay jël est-ce que dana am kóol a ñaan yàlla léegi nii fi mu nekk nii loolu lu jënd loolu lu jënd mu tëb est-ce que daa am kóol a ñaan yàlla est-ce que daa am kóol a ñaan yàlla. da nga doon góorgóorlu xëy xëy rek dawal bàyyee est-ce que daa am kóol a ñaan yàlla. allahu akbar jamono bi ñu toll kenn kenn xam nañ mbokk moo xam ne ci ay fitna yu amoon da doon ñaan ay borom xam-xam ba am kenn ku waxal wax musiba bi rëy mu ñaan ko yàlla wallahi kooku dam génne ci sunna kenn xamul kan la lii may def nii koy dund nit ñi li tax ma di la ko mooy ngir nga xam ne lawoon di am ni di am ba léegi kon mbokk yi ñaanal bu ñu xool ak jullit da koy mooy di ko ndax ay musiba yeen moo ci nekk léegi bii war nga tuub dellu ci yàlla fekk da ngaa doon sa mbokku jël nga baalu yéen yàlla bi nee na ku amee sa mbokku jël am gaawal nga baalu ko balaa bi te ñëw boo xam ni dërëm amu ko dinaar amu ko mane bañ koy weccante mooy ci yàlla koo toll rek ci yàlla bi kon mbokk mi Aïcha radiyallahu anha ñëw doon tawee ko borom téere bi nag tom boobu ñu ci noppee nii def xaadisatul jëf xaadisatul jëf dama koy jëf li tax ma koy def mooy bu ngeen fàttali ko suñu borom defal nañu taw bi ba aaya yi jox ci xaalisatu jéeg bi ci suuratu nuur moo tombeeg dal bi bu ngeen fàttali ko keroog defaloon naa leen benn bind ci nekk li xaalisatu jéeg kon tey danaa ko tëb waaye dal bi di ñëw balaa dañu ko tuddee incha allah dinaa la indi ay njàngale yoo xam ni moom lañ mën a tiire nag ci xew-xew boobu boo fàttali ko nit la woon naa leen xew-xew ba lan demee ak position yi ci saxaaba yi amoon parce que bii ñun incha allah dinaa leeral nag ana yan bind yoo xam ne daf ñuy wax na fitna su amatee ñun ban tànk lan war a taxaw dinañ ko leeral parce que bii incha allah kon ñu daal ci al irhaqat wal alamat allati tusiru ila qurbi wafati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bunt bi borom téere baa ngi ko tuddee mandarga ak ci yi nga xam ni da doon wane ni yonent bi aw fanam mi ngi waag a jeex allahu akbar xam ngeen bu ngeen fàttali ko xeetu saxaaba ñu ngi tàmbalee woon dund Abu Bakar bu fàttali ko loola ba léegi ñu ngi bëgg a yàgg neewoon naa la waroon nañu mën a tàmbalee wax ba dund yonent bi waaye defuñu ko lu tax ndax yonent bi bu ne ci dundam lañ nekk yonent bi bu ñuy jàngal xeet saxaaba ay ndongoom ci dundam la ñuy jàngale duñ ko bàyyi bu ñuy toppee ñu nga dundam bu ñuy jàngal xarit ñu nga dundam kon léegi ñu dundam dana dugg ci biir dara loolu moo tax nag borom téere bi muy bunt bi tuddee ko mandarga yi wane ni fanu yonent baa ngi bëgg a jeex sallallahu alayhi wa sallam lii nag mooy ci ci gën a màgg ci gën a rëy ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom téere bi inna al ahdath al azima yasbiquha min al irhaqat wal alamat allati tushiru ila qurbi wuqu'iha nekk mbir yu mag yu ngam yi dafa am ay mandarga ay signe yu koy jiitu yu lay wax ni mi ngi bëgg a ñëw moo tax àllaaxira buy waaj a jeex ay mandargaay ñëw fal yanzuruna ila saa an tatiyahum baxta faqad jaa asraafuha mandarga yéex na ba noppi kon asraaf muy alaamaat yàlla daf la digg ni ubbi nañ màkk mbokk yi ubbi nañ màkk te ubbi màkk ci mandarga yi gën a rëy yi war a yent bi aw fanam jeex na la ko ubbi makka mi ngi amoon ci atum juróom-ñetteel ci gàddaay ubbi makka mooy lan xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam makka lañ ko dàqee woon mu génn dem Madina ba muy génn ma ngay wax dëkk ba naan yow de yaay dëkk mu gënal ci dëkk yi bu dul waral samay mbokk ma ko génn dama dem ba mu demee Madina toog nañ fa ab biir bi jàppa voyage pour ñëw makka omra bañ ñëwee di omra ci gaa yi baare yoon ñu leen duggee dugg du ngeen dugg doojee keroog ay mbir xewoon na ci rasuulul mag ca la wàcce loolu la ñuy tuddee sulxul xudaybiya ba gars yi ci ñente woon ay accord ci diggante ak yonent bi ca la yonent bi ne saxaaba yi meroon na li leen yéeme yi teree yi dugg mat ca ëpp ñu leen doole ba amal na keroog laa dama tikk sàkk naan man ñii yonent bi xanaa ñun dañoo nekk ci dëgg mun musuma tikk sàkk di wax yonent bu dul karam aw bakar nag ak siddiqul akbar Omar nee na moom aw bakar musul tikk sàkk loolu nekk laa am musul dañ ko dama di tikk sàkk Omar nee na dama dégg ci Abu Bakar naan ko waaw yonent bi bu mayee ka leen génn ci yàlla bi su waxee dañuy déglu lu muy wax allahu akbar ndekete Omar li muy tàng tàng am na ko ko ñeme kat am na ko ko ñeme mooy waa ji sewraat bi jooju nga xam ni bu moxoñee tubay ji sax day saan day wadd ndax lu mu suutee ah nga xam ni fàtte sax bu koy jàng day kër nga xam ni boo koy gëm a gëm doole muy daanu ko koy Abubakar lan moo tax Omar ku mu am ku mu ragal ndekete iman dina ci Abubakar sax mu ne ba mu ne ma yee ci la sa génn bi dama ne ñii ci nopp waxaat gaa yi xam nañ kuy Omar wala Omar xam ne kuy Abubakar loolu bu amee gaa yi yéen dafa ne wàllu leen waaye kenn nangu la wax fekk ni nga am ak umu salama jële umu salama yoon waxul sa bopp dem sa yoon gaa yi bu ñu sentir danaa commencé ne léegi wax ba mu defee lan ko wax ca saxaaba yi wadante ba keroog xam na ñoo xam ni dañuy tagg seen morom ndax yàkkam ci gunu yàkkam ci wadante loolu mooy suñ ko day jël ca asma ba mu génn seen nag nga xam ne jàll naa wax na ci la asma sa am lan nekkoon daaw am nañ ko ren loola mooy atum juróom-ñetteel ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn boobu atum juróom-ñetteel ñëw wutuut yi commencé ñëw ida jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluun allahu akbar saa bu kiimaa leen jox Omar daan def bu kaay yi toogee di waxtaan day indaale Abdullah ibn Abbas ni ko kaay yi waxtaan fekk Abdullah ibn Abbas jëlee bu tuuti ni ko kaay yi ñu ngi ciy naan benn bi saa yi boo xam ne li ngay def jaadu ndax kii ngay indi doomu jàmbur ñun ñëpp am nañ ay doom pourquoi ngay bàyyi gone bu xam te bii muy waxtaan ci waxtaanu paa yi da nga jàpp ci def xamal ne bis dinañu ma wax leen ñu leen kii baax na comme yéen allahu akbar benn bi xamal naa ne yéen paa yi yéen laay laaj ida jaa nasrullahi wal fath lu muy firi ak lu ma tax a wàcc kii naan mooy lii kii naan mooy li ku nekk di wax ay wax yoo xam ba gars yi jeex mu ne Abdoulaye ibn Abbas ida jaa nasrullahi mooy la mu tax ci borom mu ne ko lu ko taxawaay mu ne ko tàggee la lettre bi tàggee yoon bi mooy ida jaa nasrullahi allahu akbar Omar daal ni moo ne Abdoulaye ibn Abbas jékki-jékki li nga ci am moom laa ci am mu ne bàyyi li ma leen wax léegi nii waxoon naa ne kii faa la comme yéen mi ngi nii jékki-jékki bi mu am ci ida jaa yéen baa yëpp dégg leen ko ci mooy dara tàggee yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ida jaa saa bu yegsee nasrullahi dimbalal yàlla yàlla dimbale ci nit ñi buñ yëg di dimbal leen dimbal leen wala su yàlla dimbale ba ko imaam wala ay tan naata nga gis nit ñi yadxuluuna ñu ngay dugg ñuy diini laay ci diine yàlla ci ak waajal ay mbooloo kal ak moom dañ doon tuddee amul fuur atum atum gan yi te lañ waxoon boo ma tax vraiment dañoo bokk ci sunna nit bu amee gan mu sol lu rafet yéen dañ ko mayoon benn manta bu rafet manta boobu daanaka daanaka ak moom li mu koy sol dafa bari loolu lu tax benn ñaar nit rek ñu ne ko mbooloom saxit da ñëw nañ mbooloom wax ñëw nañ gis nga xadis bii ngay dégg mu siiw lool ci xadis yooyu ñu mujjee wax la ko mooy sandu kamaara ay ñu ngi sandu xadis boobu nga dégg mu siiw lool ci ñu mujjee wax la ko Maalik ibn Xubayr bi mu ñëwee ci kër yéen mu ñu am ko vingt jours ba yéen ci yëg ci bëgg nañoo ñibbi ci la ñu dem ñeen bu ngeen demee tànn leen noonu kat ut leen imaam wa sandu kamaara ay ñu ngi sandu الله أكبر الله kon ci at moomu ci la mbir yooyu xewe woon te la yàlla bu waxee loon leen ma leen maa ngi fay dellu leen ci su ngeen demee tànn leen imam wut leen noddukat tey nag na ngeen di julli comme ni ngeen ma gisee muy julli ci at yooyu ci la wu ñu doon ñëw ñu di ubbi di islam yàlla mu ne ko war a ay tan naas ci ngay gis ni yadxuluuna fi diinillahi afwaajan afwaaj jamxu wafd al wafd afwaaj ak wufuud ñaar yëpp benn ba ne jamxu la mooy mbooloo yi ñëw tudd ci islam at moom ca la amee idaa jaa ca la wàcce ah nit ñi nga xam ne ñoo nekku ci lislaam nangu nañu tuub way laa ko nangu ñu faw ngay joxe impôt hatta yootu jizyata an yadin wahum saagiruun surtout tawba mooy aaya jooju yi yëpp tàmbali di am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem xeet yi ñu defoon ci nit yàlla defal ko ci ndam te mu at moomu lay saan pour wan la yonent maa ngi kàddu na waaye saxaaba yi xamuñu allahu akbar xoolal ñu la genn aj la aj genn aj la aj ba muy aj genn aj ka daf ne xudu anni manasikakum xool leen bu baax ñi may ajee la am lii la alqaakum baada amikum haada amaana dinañ ci mos fekk kon moom xamoon nañ lay def sallallahu alayhi wa sallam waaye saa moom ak ca la yonent yàlla saa sallam yónni woon Muaaz ci nga xam ne yonent bi ci mus na nee na yonent bi daa woo Muaaz Muaaz ñëw mu ne ko Muaaz kaay ma yónni la Yaman Muaaz kaay ma yónni la Yaman allahu akbar kaay ma yónni la Yaman bi nag moom saa boobu ma daal dégg na da lay fekk fekk ndax yàkkam ci lan moo gën a neex ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy loo la ci ay soxlaam ne la kaay ma yónni la xam ngeen Muaaz amoon na tànk bu dëgër ci yonent bi ndax Muaaz yonent bi ko inni uhibbuka fillah Muaaz man dama laa bëgg ngir yàlla danaa ko loolu man xabatuma azima loolu loolu ndam lu rëy la ndam wallahi maa bëgg yonent bi rek ndam la yow yow ku rek yaa wax man damaa bëgg yonent bi te loolu muy dëgg loolu ndam la ndax bëgg yonent bi ndam la ba kay naka bu la yonent bi ne maa la bëgg sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko Muaaz inni uhibbuka fillah dama laa bëgg ngir yàlla Muaaz kaay yónni la yaman Muaaz ñëw dem këram bi soxnaan na ko préparal bu war mbaam teg ci ëmbab cere teg ci mbuus teg ci ndox teg ci nangam allahu akbar Muaaz nee na rus naa war a mbaam ne yonent bi dox sallallahu alayhi wa sallam ma ne xanaa mbéy damaa ànd ak yow ba nga wax ma soxla si ba noppi allahu akbar yonent bi def na lu gëj def wala lu mësul def yónni ko au lieu que mu waxee ko yonent bi ci kër ga mu ne ko kaay ma gunge la yonent bi ànd ak Muaaz Muaaz waral mbaam Muaaz ni mukk xanaa nga dégg tourné yonent bi dox Muaaz dox di woman mbaam bi yonent bi dox ba mu yàgg muy dikk Muaaz ni ko Muaaz إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري الله أكبر ليش معاذ يوم يلزم نفسه معاذ أما نتمنى أم يلا رفني jotaay bii ma ànd ak yow di dox mooy suñu mu jëndalu ànd ci kaw suuf allahu akbar mu ne ko amaan na sa yóbbanti bii sa yónni bii ma la dox bis boo ma doxee boo jënd si waatee jàkk yeeg sama armeel nga bii fekk rek ma daal di yuux di jooy di jooy ba yonti moo koy yëkkati sallallahu alayhi wa sallam lu tax Muaaz nee na xam naa ni yonent bi daawul waxee man nii kon am na mu xew ndekk boobu yonent mi ngi tàgg koo sallallahu alayhi wa sallam nee na bi loolu amee rek Muaaz jooy li firaaqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na summa iltabata fa aqbala bi wajhihi nahwa al-madina فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا nee na noonu rek Muaaz jooy ba yonent bi yëkkati ko lay daal amatul fexe xaw ma dem yóbbante bi te wóor na ko ni wala am na yaakaar ci ni bu demee balaa jël si dëj bi ko yónni Muaaz bi ñuy dellu si waat Madina te tukki booba la ñuy ñàkk ñàkk yàgg fa lañ ko tàggee yonent bi dëj bi ko dem Madina Muaaz nee na ma ma ma maa ngi dem waaye mënatuma koo muñ may gëst rek allahu akbar kooku kooku la mu yëg ci tiis keroog moom rek moo ko xam maa ngi dem waaye sama xel day na ma bala ngaa jël sox fekk leen suy baax mu ni may dem di gerte di dem di gerte te gerte yooyu ca laa ko déggee mu naan tëj ñi gën a yey ci man de mooy ñi ragal yàlla ñooñu nag moom ku mu mën a doon ak boo mën a doon dëkk ak ban jamono nga mën a fee ngeen ko doon suñu jamono ji mu ne ñoom ñoo gën a ma yey ci man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla boole ci ñoom maa daal di dem balaa moo dégg waat leen ko tàggee yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci mbir yi lay wan ni yonent laa ngi tàggatoo ba léegi xoolal ci yi nga xam dafa am ci aay di ko def yonent bi dafa am ñaari gaaf xam ngeen luy am gaaf mooy bu weeru koor dikkee ma tànn fukki fan yu mujj te weeru kooroo ñaari gaaf am nañ maanaa yu bari ci arab boobu anam bu gën a yàqu waaye suñ ko waxee la ëpp lañ cay nag mooy ñaari gaaf ci weeru koor saa am fukki fan nekk ko ci jàkka ji du ma dem sama kër du ma def lenn du ma dem génn du ma dem ceeb du ma def soxla du ma génn ci jàkk ji laay nekk wala ma sama lépp yi fekk jàng alquran julli jaamu yàlla xanaa gëmen xëdd na la muy jaamu yàlla bu rëy yéen par fukki fan la doon ñaari kaab ak nim xaatoo ñaar fukki fan la ñaari kaab vingt jours saxaaba yi commencé di ci loolu beneen bi ci def mooy ak mu ca professeur bi day ñëw ne ko kaay tari alquran mooy kan jibril di ko jàngal professeur di ko jàngal alxuraan muy jibril day ñëw ni ko tari ma dégg ak mu jëf liirab ni alxuraan waa jib ak mu jëf jibril day ñëw ni ko yaa gën a faraab lu tax ndax dana ko yóbbu ko falaa tam sax moom waru ko baax ndax yàlla moo ko wax ak mu jël Jibril day ñëw ni ko bari yonent bi tàmbali ma xaral naa bari kon ñi nga xam ne dañuy wax ndax alquran buñ ko mokkale ñu ni kaay yi seen la nga tey sunna la ma ne la ñooñu nañ dellu foofu su fekkente ni professeur bi bàyyi ko fa yàlla muy Jibril mooy téye laata kon nit ñi taxul ci wax xam nga am na ñuy ñaanee loolu am na ñuy wax ni est ce que bokk na ci sunna wala bokk na ci salafu saale nga bokk laa faa ñu lay jël ngay tane ma ni Jibril ci boppam moo ko ci def ci lii xadis la bu wér boo demee ci téere yi nga xaar sunna ni leen ko ci fekk ak mu jot Jibril day ñëw ñu ko dalal benn yoon bu taree ba noppi mu dem ci weeru koor bi Jibril day ñëw ñu ko tari mu tari mu demaat toogaat balaa weeru koor jox mu dikk nag tari muy ñaari yoon ba tawoon ne comme yàlla bëgg a jeex kon yii yëpp ay mbir la bokk na ci yoon bi sax ci atum fukkeel ma ca la génne woon dem def ak bu mag la ca la waxee woon amaan na man ak yéen dootuñ daje beneen yoon lu ngeen man xool leen ko fii may def ca la ak yow admal la ko diine ko wàccee waatmantu aleykum niamati wa raditu lakum alislaama diina mu mel ni comme nit yi mat na sëkk man da te yéen abu saay bin xudri nekk li bëri benn bis yéen bi daa woo saxaaba yi ba léegi ñu ngi tàggatoo am na gaa yu mbuus yu xam ne fii ñu ngi tàggatoo waaye am na gaa yu mel ni man yoo xam ne yëgul lu xew lay sax yéen bi am na benn waay ci jaamu yàlla yi sama xalaat bi naan xanaa kooku sa xeetu yàgg yàlla ku nekk di xalaat xam nga yéen bu ne am na benn waay rek ku ne danaan kan la ndeke moom boppam lay wax yéen bi ne am na benn waay inna abdan inna inna allaha xayyara abdan bayna dunya wa bayna ma inda faxtaara daaka al abdu ma inda allah qaala ko baka abu bakar fa sadaqa abu bakar yéen si yàlla bi daal ni am na benn jaam yàlla boo xam ni yàlla da koo tàmloon ni ko bu la neexee ah nga sax ci àddina ba kenn àddina yi ñukki doo ko baax bu la neexee nga baatu léegi ñëw fekk ci ma ci li ma yore ci ay xéewal nee na waaja nag la ko gënal mooy tànn dajeeg yàlla rek am ko kay yuux allahu akbar saxaaba yi ci ndax ñu ko foofu ki ki la moom dafa bëri ay tool moom bu yëngu ci wax moom yëngu ci daal inna xamal ñu bu ñëw ci yow jooy allahu akbar benn bi benn saxaaba yi ndeke ci aw bakar moo nu gën a xam yéen ci ah ñi ñu tàggat ñi ngi yàlla parce que ñu ne moom dafa bëri ay jooy moom yonent bi mu leen day lakk sax mu commencé jooy léegi Abubakar xam nañu inna abdan yaani Muhammad nafsa ba yonent bi naan am na jaamu yàlla ndeke boobu moom bokk la gën a am Abubakar mu ne fa kaana rasulullahi wa muxayyar wa Abu Saïd mu ne fa kaana rasulullahi wa muxayyar mu ne wa kaana Abubakar a'lam léegi te yooyu yonente bi la yàlla tànnaloo muy nëbb boppam waaye nekk ñu aw bakar moo nu gën a xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan benn bi benn bi yonente bi daa ñëw ndeysaan topp ab ñëw te lii may wax ni ci fanam yu mujj yi te am na it ay fan yu xew xam ngeen toog dafa xaaji guddi mu yee benn saxaab ñu wax abaa mu way ni ko bëgg bëgg mu jub ci xaaji guddi ay trois heures quatre heures du matin mu ne abaa way ma jugal nga jub gunge ma armé ne ma ziyaara mos ngeen a gis loolu quatre heures matin trois heures mu yee ko ne dugal bu gëm a armeel damay ziyaara ji yàlla ma digal ni ma demal nga jéggalul waa armeel ya fekk boobu ba léegi rek wàccaay bi ci la nekk sallallahu alayhi wa sallam ay ci ne dem bi yéen bi daa jóge ci armeel yi ñëw fekk ma sama bopp di metti nekk fekk sama bopp mi ngi metti ma tëdd yéen bi ñëw ni ko lan la pour war na ñoom ñaar ndeysaan ni ñuy déggee te woo yéen bi ni ko lan la ni ko sama bopp mooy nekk yéen bi daal di reetaan ni ko ah yow de bopp bi nekk moom wàññiwul dara moom boo ci jaaree woon dee nag mu wàññi dara xoolal ngeen ci ni mu bëree kat te mi ngi feebar mi ngi feebaram moom yéen dafa la mi paatoon ni ko ah ay dara bopp bi nekk du dara boo ci jaaree woon dee ma sang la sang la suul la xanaa dina baax rek bu doon ñun lu lu war a wax yow da baaxul yonent bi sang la sang la jullee na suul la xam naa déedéet ragalees na ko de waaye man ma ko xamoon ma jël de ndax yaakaaru na lool bu dee naa fekk yéeg yéefar yi xamoon nañ ko bay jéem yonent bi sang leen sang leen suul leen ba ñu bëgg du jël ko mbàkkee waaye dëgg laaj mu ne ko wax nga dëgg nga sang ma sang ma suul ma ba pare seeti beneen jigéen tax ko dugal sama néeg waaw gis ngeen jigéen ñu fi allahu akbar nga sàng ma sàng ma suul ma boo paree takk beneen jigéen andi ko sama néeg yi maanaam du ma la njëkk a néeg allahu akbar loolu da lay wan li ñu doon taxee ñoom ñaar mooy Aïcha bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag bala boo affaire bi gën a attaqué moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwu ko bàyyiwu ko ba nañ koy watatee ñi ko yóbbu ci jàkka ji muy julli bàyyiwu ko bàyyiwu ko ba ni koy sottee ay baagi ndox ci bopp bi bàyyiwu ko bàyyiwu ko ba ni ñuy jëlee bu morso tooyal ko xale bu koy takkal ci bopp bi comme jigéen bi tay ni muy def ci indi ba su paree morso bi cinq minutes mu wow xaw ndax ñax ko métti tàngoor yonent bi génn ko waaw kon ci feebar boobu ci la yonent bi faatoo sallallahu alayhi wa sallam kon lenn ci la koy mottali ak ñu xam ne dëgg dëgg mu jënd la tudd ko Aïcha dana ñëw ci bind yële di ñëw ñu ngi ñaan suñu borom boo ñu defal tawfiq hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain